salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di seen internet maa ngi TV tey ñu ngi woon nga xamante ni mooy Tëngéej ñëw waxtaan ak ci wàllu pose wàllu tatouage dañuy gis ñi nga xam ne dañuy seen yaram yi mu leen di indil ay feebar et tout pourquoi pas tey ñu ñëw marché Tëngéej laaj leen ñi nga xamante ni ñooy dox ci wàllu tatouage. ànd waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon yéen a ngi CIK TV tey ñu ñëw fii fekk fi ndaanaan muy Ndongo Lo Ndongo Lo 2015 naa waaw maa leen di fay di nuyu waa Sénégal di nuyu monde entier waa di bëgg fan su Ndongo Lo yëpp nag. Ndongo tey ñu fekk la ngay def tatouage en même temps nekk artiste ñu lay laaj métier bi noo ko dundee. waaw métier bi doon na loo xam ne dañ koo donn bëgg ko def ko suñu xol ñu jàng ko nag ñëwuñu rek di tatouage ndaxte dem nañ si fu ne dem nañ si ba Ziguinchor Guinée waaw Fuuta yooyu yëpp dem nañ si ndax liggéey bi yëpp moo ñu yóbbu foofu noonu bëgg ko nag def ko amour du xaalis bi nu si am mais amour lañ si am ko ndaxte ñu ngi yëngu si leneen di yëngu si aar di tëgg suñu programme di tëgg suñu projet di def suñu clip di def mais li amour la ci ñun quoi moo tax dëgg la ndongoloo mën na la laaj tay xalé jigen yi nga xamanteni dañuy jël seen yaram bi di tatouage partout seen seen seen wéni et tout ya nga xamanteni kenn mënu ko wax sax nan ngeen di dundé ak lolu wa mais lolu motif la rek lolu bëgg-bëgg la rek xam nga amna na ñoo xam ñu ngi ñëw di def seen loxoy di tatouage seen loxoy am ñoo xamne ñu ngi ñëw tatouage seen tanki am ñoo xamne ñu ni ñëw di crayon mais amna na xamné xam seen bëgg-bëgg la dañuy bëgg ben def fii ni pour seen jëkkër yi gis ko contane mais ñun buñ koy liggéey amuñu ci ben amu dañ koy liggéey rek pour facilement pour bëgg-bëgg rek. dëgg la ma lay laaj manam loolu mo gëna bari ci métier bi wala ou pas ñi tatouage seen yaram et tout lan mo ci gëna bari dal ñi tatouage seen sexy xam nga seen i et tout ak ñi tatouage seen loxo lan ngeen ci faral di am client souvent. wa lu ci ëpp mom loxo lan am lan euh, lan ci am quoi loxo ak tanki pour ñuy xew ak ñuy def yoo noonu mais in saa yi tamit ñu tatouage waaw tatouage ay affaire ñu woo ñu ñu def déplacement à domicile waaw bu ñëwee ñu daal leen dugal ñu dugal ñu seen sàmm ñu tatouage leen ba mu naaj ndax seen bëgg-bëgg la quoi ñun loo askan wi rek moo ñu fi teg suñu liggéey rek moo ñu fi teg lu waay bëgg moom bëgg ñu defal ko ko waaw boo ñëwee dina ñëw defal la ko. nga jox ñu li ñuy jox ñu daay dem. dëgg la noonu demee. est que tamit mën naa laa laaj ba xam da ngay yëngu ci wàllu tatouage yi nga xamante ni dañ koy def pour à vie ak yow loolu nan nga ko gisee ma laaj tatouage à vie bi ak bii ban moo ci gën a ndax xam nga ñu bari dañ koy def ñi di leen indil problème dañ koy gis ci internet bi tele bi ñi nga xam ne dañ koy def mu leen di sonal di leen indil yenn feebar yow loolu lan nga ko jàngatee. waaw tatouage bi am na ñoo xam ne leen koy def mais am na ñoo xam ne seen der seen po moo mo waral mu len allergie allergie day dal diw wala nga parfum nga allergie même tatouage bi en ñu defal ko sa der sa peau oyof ñu defal ko mu dal lay allergie mais bu la allergie re jaru nga koy woné di ko publier di yaqal ñeneen ñi wala nga yàq liggéey té ñun li lan am di ci sago li lan yoré suñu kër yor suñu wajur yor suñu doon père de famille mais bu la dalé waro ñew di publier wala ngay def dara mais tatouage original bi dañ koy liggéey dañ koy def nice à vie ñu koy liggéey am na ñoo xam ne ñu ngi si dem gel beenee toog noonu moo leen ko dóoral si loxo yi fii nii mais du la def dara bëgg-bëgg la rek kon waa mbokk yi ñoo ko gisandoo mais Ndongo Lo 2075 fekk nañ fi leneen la nga xamante ni mooy loolu ngay artiste di di yëngu ci wàllu way wàllu tëgg wàllu fecc maanaam l'homme douze métiers léegi est-ce que mën nga ñoo ñamal ci voix bi ndax mbokk yi ñuy seetaan ñu xam kan mooy nongaloo Lo farwaay mooy wuleet ñaani gañ yee jam fari ma waaw waaw wulee gay yooy yee yooy jam fari maay bàkk naa la jiñ naa ni bàkke doomu garmi yaa ngi ci yeen ay ndongo la sànkees artiste bi doog a door la di bëgg a dem ngir yàlla yàlla yàlla leeral sama yoon waa groupe baa ngi ne yàlla na seen jàmm yàgg farwaay li ngeeroy wulee ñaani gañ yéey jam farima waaw waaw wulee gay naag yooy yee yooy jam fari maay waaw noonu la rek la waa kon ni ngeen ko gisee kon ni ngeen ko gisee rek waa Tëngéej wàcc na ba zéro degré ñu ñëw fi di def reportage comme tey ñu ñëw fekk fi ndongoloo mi nga xamante ni borom baat bu neex bi ndongoloo ñu ngi lay ziar di la di la di wax ni kontaan nañ ci yow yàlla na baat bi wér di wax ni dinañ def ak yow beneen émission dinañ la ñëw seet si ngéwal ñuy rokk junjum yësa sin yaa ma gën a xam comme ni ma leen ko waxee woon rek waa ba tey ñu ngi si TV Sénégal ma ànd seeg sama maan bu ñaawul bi sama xarit sama doom ndey kon boog topp ma ñu dem waaw soxna si ñu ngi lay nuyu wa ma ngi leni fay. di la laj tur bi nan la. Njare Ndiaye la tuddu Njare Ndiaye madame Chéri Badou Ndiaye. ah lol fort na waa Njare tey ñu ñewon ci marché bi di introsé ñi nga xamanteni ñoy def tatouage. Mhm. ñu lay laj métier bi yow noko dundé ak kañ nga ci duggu wa métier bi na xawna ci cee presque amna ci 10 ans. Mhm. wa xalé jigen dal def ñu bëgg seen bop innover rek nak di xol li temps bi andal ñu diko def. Njare est-ce que mën naa laa laaj xale yu yi nga xamanteni dañuy tatouage seen arwa seen wène seen yaram bi fépp daal ma lay laaj yow nan nga ko dundee ak nan nga ko gisee. waa gaa bu dee tatouage vrai bi moom dama kaa contre parce que mag day ñëw bëgg naa nag bi nga xamante ni comme genre fuddan la danga koy def rek après bëggal sa jëkkër boo pare mu dañ nangu naa ko mais boo jëlee sa yaram tatouage ko ëllëg si biir na am na yoo xamante ni doo ko mën a tere say doom daal. comme que nag dafa xew te bii day dañ mën nañ di ko def rek bu dañee ñu rafaraat beneen waaw. maanaam may faral di gis ci réseaux sociaux bi internet ñuy gis xale yi jigéen yi nga xam ne dañuy def tatouage bi di ko dindi mu leen indil ay feebar. di leen indil feebar bu bari xam nga rek ma lay laaj yow nan nga dundee loolu ak lan nga gis loolu. gaa man loolu gëmuma ko feebar boobu gaa gëmuma ko ba bis ñëw rek ma defal ko nit mu feebar parce que ku nekk ak sa gëm-gëm. bis bu ma defalee nit nag mu ñëw ni ma man kat li nga ma defaroon lii moo ma daal dinaa ko gëm parce que 10 ans moo ngi may tatouage te mu kenn musul ñëw ni ma li nga ma defal cicatrice bii la ma indil xëy na nag ku nekka sa produit ba ngay liggéey waaye man daal dalagu ma sérieusement ma lay laaj ci wàllu tatouage ndax ku ne xam na ni xale yu jigéen ñi dañoo bëgg lu baax bëgg ay xew bëgg programme et tout ma lay laaj ba xam métier bi dox na wala. waaw métier bi tane na rek. tane na rek boo gisee nag client yi bari nii da nga yaakaar nit ñi dañoo bari xaalis te demeewul noonu parce que boo jëndee matériel rek li lay dese du bari parce que matériel yi dafa cher macha allah cheveux bi ba pare xale yi dañoo bëgg lu baax bëgg qualité da nga lay faral di defal qualité boo si génnee sa matériel moom la ciy def boo wàccee moom ngaa di nga am xaalis waa boo génnee sa matériel la cay des du bari de pourquoi tamit nga def sa jongama nii rek xëy see nii rek yaa ma gën a xam nga rek madame Ndiaye foog may digal monsieur Ndiaye rek bu may dem tàggu ko bu ma ñëwee nuyu ko ci jàmm loolu kese la. waaw kon sama mbokk yi yéen ko gis gis nga madame Ndiaye jéeg bu pare bi jéeg bu pare bi gis nga ci yi lay dox madame njaay lan ngay wax waa Sika TV. waa Sika sa kaw sa kanam macha allah suñu télé bi yàlla na jéggi yi. waaw loolu laa wax ci ci Sika TV. waaw madame Ndiaye kontaan nañ ci yow nuyu ni monsieur ñuy faral di gis xale jigéen yu bari ñu leen di wane ci internet bi ci YouTube bi tatouage bi ni mu yàqee seen yaram bi lakk ko def ko et ñu lay laaj lan nga gisee loolu. ah ça dépend si pot yi la rek xam naa si pot yi la parce que am na ñoo xam ne ndoxu siti bi ñu yor seen yaram euh, tatouage bu ci laal surtout original bi nga xam ne da nga koy deewaalee boobu moom mooy loolu mën na mën mën nga ko bëgg te sa yaram nanguwu mën nga ko def mu indil la leneen tamit mais man moom liggéeyu ma def ma original bi xale yu góor yi fii ñoo koy def mais fii benn jigéen yorul machine original bi di ko def man man man moom bu ma jigéen ñi déggaloon kenn du ko def parce que man bënn rek man mooy loolu man bëgguma ko voilà soxna si mën nañu xam métier bi yàgg nga ci kañ nga ko commencé. waaw def naa si ay 5 yooyu rek 5 ans laa si def ak léegi nii maa maa ngi sant yàlla bu baax. waa mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon ba tey ñu ngi ci marché Tëngéej ñëw wax ak kii mooy xamante ni mooy Amy Ndiaye nekk ci marché bi di leen wax ni waa tatouage comme ni ko xale yi jigéen yi di defee ñu ngi leen di wax ni tey am nañ ci ay renseignements yu leer nee nañ sans dépend ci bi sans dépend tamit ci nit ki. waaw. jonga ma nuyu naa la. waaw fay naa la. waa sax na si pour pourquoi tamit tey noir nii. waaw gis nga bàyyi ko noonu rek mu naturel. Ah. yaa a nga def sa pose bu baax def sa makeup bu baax di la laaj tey lan nga xewle ak lan moo la indi ci marché bi tey. waa ñun de dañoo war am benn retrouvaille rek di ngénte suñu taaw bu jigéen. war a def nii. Ah. waaye bi moom fii moom milieu bi mooy la solution. comme jongoma nañ ba pare dañ cee war a yokk tuuti rek. def tuuti cas. nga daal di def sa sa make bu baax nii rek daal di filfilaale ak moom. filfilaale sànni def sama yëfi mag. tey ñu ngi lay interroger fii ci télé bi ñuy wax. CIK TV. waaw maa ngi leen di wax dal leen jàmm. Sénégal ñuy question de dóor waar rek. waaw yàlla na leen yàlla may ndam ngeen dem ci kanam. loolu lañ leen di ñaanal. dëgg la kon daal lii nga war a ngénte sa taabu jigéen rek. nga def lii rek. waa gis nga yi kon ñoo gisandoo sama mbokk yi tey noir daal copa mi moom ah rafet na amu benn problème ah, madame nan noonu madame Faye madame Faye ah madame Faye du ay fo madame Faye rek day fay prix ah, waaw day fay prix waaw kontaan nañ ci yow merci beaucoup sëñ bi ñi ngi lay nuyu di la ziar ah maa ngi lay fay bu baax baax jànk di la wax tur bi nan la ah tur bi Ziga la di la wax Ziga ci lan ngay yëngu exact ah man pose ah, tatouage moom laay liggéey Zilia ñu lay laaj ci femmes yi nga xamante ni dañuy tatouage seen wàllu awra seen wàllu ween seen wàllu sexe ñu lay laaj yow nan nga ko jàngatee ak nan nga ko waaw xam nga nit nekk ak la sa conscience mais mais je me suis dit que ni am na ñu koy def te kenn mu leen ko traité mais na laaj dafa laaj intimité quand même nañu respecté intimité boobu rek xam na yenn yi jarul fësal. Zilia ñu ngi lay laaj da ngay dox ci wàllu tatouage seul wala pose ongle sil. Ah, ensemble bi laay def quoi je fais l'ensemble. depuis quand bi. Ah, ça va être bientôt 5 ans. 5 ans. Tu marche net ou da ngay partout pour la wo ak kan je centre commercial bi nek euh, marché mais damay def déplacement à domicile tamit. ñi ngi gis nga def ay pose yu doy war yu rafet yu jongama ñu lay laaj ah, c'est simple parce que pose comme comme euh, n'importe qui pour kuy def xew la. Euh, koo xam ne dafa fas yéene defante ak ay mbokkam nar a sol ay yére yu bari donc il nga defal loo sol day moom en plus. été ñëw il ñu créé tamit ay motifs yu bees. ah bi moom la xayri la diva da ciy am je pense laa diva da si am mais bi sax est ce que du ma la tuddee la diva si ah, boppam. <laughs> waaw kon mbokk yi ñoo ko gisandoo gis nga kii mooy ki nga xamante tur bi fàttali ma ko. Ziga Ziga waa Ziga moo nekk fii Tëngéej di def wàllu xeet bu baax baax yi kontaan nañ ci yow lan ngay wax tamit waa Sédika ak ñi lay seetaan. ah Sédika euh, si kaw si kanam naa euh, nice na approche bi baax na si ñun tamit parce bëgg nañu média bi gis ñu bëgg nañu siiw. donc yéen ñi ñu jege nii mën naa ne ñun ak yéen daal ñoo far quoi quand même si kaw si kanam yàlla télé am barke. Ziga kontaan nañ ci yow merci beaucoup jamm xewal yalla na bi jëm ci kanam te barkel ok merci beaucoup merci merci salam alaykum sëñ bi mané lay siyaar soxna si bi nan la sara Jaxate sara ñu lay laaj ci walu pose bek silbi comme que yow yag nga ci métier bi est ce que mën naa laa laaj xale jigéen yi nga xamanteni dañuy tatouage sen wéni sen sexy sen fu len neex ci sen yaram yow lan nga gisé lool ak ñi nga xamanteni dañ koy wone ci internet bi partout dans le monde ñi nga xamanteni dañuy def tatouage muy def ci ñom ay feebar et tout ñu koy wane lan nga ci am message boo ci sànni. loolu dafa fekk yow si jëm boppam dalaa arrêté yi tatouage ween mhm. mais man dama sama jëm bopp man sama jëm bopp su la liggéeyee ween xooluma sa ween xam may xool koppar yi ma jox ndax loolu ma tax a jóg. sentiruma jigéen boobu noonu man ka laa sentir ka yaakaar ko mais suma ma la liggéeyee ba pare may fay jigéen jigéen la ndax jigéen a gën mais su ma paree si yow par naa si yow xam tax ndax ëllëg moo tax xooluma yow man ni nga mel. damay xool man damay man su ma lay liggéeyal damay mel ni ko comme góor bu may liggéeyal déggoo ma de kii ak kii ñoo bokk koñ déggoo ma de man xooluma loolu ñoom ñoom loolu lañ santir te ni ku nekk li nga sentir day ko jëfee ñoom ñoo ko santir nañ ko defal seen bopp nag bu ci fu xale ba boo ci fu xale di ci fat te fat baaxu ci biir ndab kon ñoo ko déggandoo yéen ñi nga xamante ni yéen a yëngu ci wàllu pose wàllu crayon yi dégg ngeen seen général li mu wax yéen a ma gën a xam waaw kon daal kon ni ma leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi ci marché Tëngéej wax ak ki nga xamante ni mooy généralu marché bi n'est-ce pas. Saada Jaxate Kaba Saada Jaxate waaw Saada Jaxate kon yaakaar naa ni message bi jàll na ñëpp jot nañ ci ñu ngi kontaan ci yow di la remercier di la jaajëf. ñoo ñoo far. ok ak sama rakk yi nga àndal. muy daal sama caméraman bu ñaawul bi. waaw namul dara muy sëñ. sama xarit sama mag sama lépp. dëgg la mais borom jàmm ak ki faalawul dara. kon jeex na kon Saali yaakaar naa ni dégg nga li mu wax ah gis nga. nekk Tafa ji xool. sama rakk sama. waaw Usman. Ousmane. waaw kon yow ba gis nga dégg nga daara bi ñëw de. kon ñoo ko gisandoo kon yaakaar naa ni Sada wàcce nga fi ba zéro degré ëpp na. waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon ci marché bi waxtaan nañoo ak closekat yi waxtaan nañoo ak tatouagekat yi xamal nañu li nga xamante ni moo logique ak li logique ci tatouage comme ni ma leen ko waxee woon rek may fii ci marché Tëngéej bi vraiment gis nañ ñiy dox ci wàllu métier bi kontaan nañ ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax ni nag lii mooy suñu émission doxantu avec Khayrilah Diba beneen yoon ci yeneen i anam.